bu sell ànd akub ziar di ko jëmale ci ak cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy cheikhul xadim ci kaw suuf di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba yéene yi nga xam ne bëgg na koo liggéeyal cheikhul xadim yépp bëgg koo liggéeyal lislaam mu mën koo àggale te ànd ko moom di yëkkati nuyoo bu tedd bu bu sell bu ànd ak ziar bu kawe di ko jëmale itam ci ak cheikh Ahmadul Mokhtar di sunu kilifa di suñu soppe nag di sunu wëllëre di yilif di kilifa ak penc mii di ko jot li itam mboolem njabootu Cheikh Moustapha al Karim di ko teg ci loxol sëriñ Abdourahman mii teew ci jataay bi ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ak mboolem njabootu Cheikhul di nuyu itam sama set ba nga xam ne moo nekk ca Nibo ji nga xam ne léeg-léeg dama fay jaar di ko tooñ ak mboolem njabootu. Cheikh Moustapha Al Karim li ma ko wax di am mbégte mu rëy lool ci teewe jataay bu tedd bii nga xam ne jaroon na fenn fu ne nit jóge fa ñëw teewe si ko ndax ndigalul sunu borom la subhanahu wa taala moo nu digal nuy ñaanal sunu bopp di ñaanal way daw li di ndigalul Cheikhul al Xadim radiyallahu anhu mu wax ñu ne bokk na ci li nga xam ne lu ëpp solo la muy ñaanal koo xam ne bàyyi ko na fi sëriñ bi wax na léegi bay bi id duaa yanfau maytan fil qubur wa yanfau alxaya wa yujibu al ujur wax na ne itam ñi nga xam ne nekk nañ foofee ca barab ya ca foofee ñu fa jëm ñun ñépp kenn ku fa nekk lu sa xeewal bari bari bari danga ne woon siiwe dellu siwaat fii ci jamono doonte as lu mu tuuti tuuti rek ngir nga defaat loo xam ne dana yokk yiw ba foofee ak njariñ la foofa mm-hmm. ndax foofa dara dafa doy kenn doon doyal ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doyal ko te dafa wax ne saa buñ ko tuddee nañu julli ci moom ñu gi Cheikhuna al Xadim radiyallahu li nga xam ne julli na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa te julli googu ak ñaan la moom mi nga xam ne dafa séddale ay waxtoom ñaari xaaj benn bi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mu ko takk kon bu ngeen wootee jotaay bu tedd bu màgg bii di ci def loo ñëpp ngeen koy defal waaye ñëpp ko ànd ak yéen ñëpp ko war a ànd ak kon ñu ngi ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi suñu boroom nangu ko di lu kàddu yi nga xam ne jib na fi defe naa ne ku ciy jëlati kàddu yi da ngay rafetlu rek kàddu yi nga xam ne Serigne Khadim wax na ko macha allah amul dara les ci man yokk soññee na fàttalee na digle na kon taxaw na waaye bi nga xam ne moom la Serigne war a loolu kon loolu jàpp nañ ne wóotu na ci mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo war def loolu wax ji jot na sëkk macha allah kenn mënu cee teg dara dara dara dara alhamdulilah am na benn xissa boo xam ne moom itam nitu yàlla ci màggaayu ñaanal ko fi nekkul dafa mas a romb ci ay barab yàlla defal ko kashfu kashfu mooy mën ngaa toog ak ay nit di gis loo xam ne ñoom duñu ko gis suñu borom defal ko kashfu ci barab yi mu gis ñetti bokkoo gis mbooloo moo xam ne dañoo nekk fee di xëccoo xëccoo bu metti gis ku toog fee ànd ak mbégte mu rëy rëy am ku toog fee jàpp njàmbaam mu daal di laaj ne waaw ñii di xëccoo lu ñuy xëccoo mu ne ko dafa am ku fi jaar jàng suuratul ixlaas sarax ko waaye daw lu nekk fii ñee nga gis moom lañuy ñu xëccoo xëccoo bu metti na lool mu ne kee toog moom ànd ak mbégte mu rëy rëy lu ko bégloo mu ne ko moom da caa jiitu jël ca loo xam ne matut aw araf ci misaal bi ñu doon wax qul huwa allahu ahad baatu xaaf baaw bee rek la jël waaye agul sax ca laam ba waaye xaaf googee mu ca fëgg rëy na rëyaay boo xam ne ma ngi ca mbég mbégte moo xam ne moom kooko gis na ko ci moom am ku toog fee jàpp njàmburam mu ne moom lu tax bokkul ci xëccoo bi te gisu ko gisu mbégte ñu gis ci kii gisu ko ci moom mu ne ko moom dafa am ñu nekk ca àdduna di ko yónnee ñaan mu ne kon moom mën naa doy loo loolu bàyyee ko ñii di xëccoo loola moom moo tax mu toog jàpp njàmburam kon loolu dafay wéral itam di gën a fedd feddali solo gi nga xam ne ñaanal waay dawlu am na ko kon ñu ngi sant bu baax a baax ci ñaan yooyu rawatina nag ñu defe ko ñu da ko defe nag ci barab bii nga xam ne jumaa jii ñu toog nit lu ko jege da ko dul xam waaye Cheikhuna Xadim radiyallahu anhu mën nañu wax ne daraja ji gën a kawe ci nitu yàlla fii la ko defee fii la ko fekkoon kon barab bi amul benn sikk ne lu fi nit ñaan sunu borom dam ndaw ñu jàkkaarloo kër gi nga xam ne Cheikh Moustapha Al Karim mi ko njëkkoo fii la nekk mu doonal kër Cheikhul Khadim kon fii moom dañuy am yàqin ci ne lu nu fi ñaan sunu borom dana ko nangu tax gis nañ ne ña nekk foofa ni ñu ko waxee woon ñaan yëpp lañ soxla ñaan yëpp leen fay fekk waaye jàpp nañ ne gi jóge fii moom moo ci ëpp ab yool moo leen cay gënal moo ci ëpp njariñ ci ñoom kon yàlla na ko yàlla na dañ yàgg koo teewe lu bare bare di sant Serigne Serigne Abdourahmane moom itam moom dañuy wax ne royuwaay la ci yoon ñu bari dañ koy wax foo xam ne du ko fekkee waaye defe naa ne waxtu wane rek muy gën a wane lool kon ku yàlla dogal muy sa jëwriñ na nga xam ne am nga jëwriñ ju mat sëkk doolee laxasaayu te fas yéene roy ci moom xam ne rek la fi sëriñ bi indi woon Cheikh Moustapha al Karim jëmbat ko suuxat ko loola moo fi nekk ba nëgëri tëdd fi jox ñu ngi ñaan yàlla may ñu jàkk ko teewee te lépp luñ fi ñaan sunu borom nangu ko jotal ko way dawlu ya ñun ñi nga xam ne ñoo fi teew itam sunu borom taas ñu ci bàkkee boobee te yàggal fi sunu kilifa yi